ba pare nekk nekk koo xamante ne kuy nekk Thiès am fierté la ci Thiès moo tax bañ ma ko joxee jigéen ñi jigéen ñi weddiwuñu ma te ba ñu ko gisee itam xam nañ ne kii mat na maran muy Adja Ndeye Tické Ndiaye bii muy directrice générale de l'ANAM man ba muy egsi biir Thiès laa ne kii mooy Tické Gagnant waaye tey jii sama grand frère Brin nee na mooy capitaine bateau bi man mooy le capitaine de l'ANAM man moom itam mooy le ticket gagnant capitaine la mooy ticket gagnant di nuyu tam ñi nga xamante ne sama xarit sama xarit bi nga xamante ne moo yegg si léegi muy Babacar Fall bi nga xamante ne yor na mouvement di jàppale président Macky Sall am tamit programme bu mag. boo xam ne mi ngi koy mbébét pour Thiès muy zone industrielle bi nga xamante ne moom la bëgg a def ci région de Thiès ci département de Thiès te loolu lépp ñuy ñaan yàlla def muy nekk loo xamante ne léegi mu antu muy liggéey ak ndamu Sénégal ak ndamu Thiès di nuyu sunu responsable benn Bokk Yaakaar dirigé par Brin Ndiaye ànd ak Cheikh Kane mi nga xamante ne moom mooy permanent wu AFP di nuyu sunu sœur muy député Ndeye Fall fii la dëkk ànd ak sœuram ak xaritam di sama jabar muy madame Camara Ndeye Diallo Dieynaba Diallo bi nga xamante ne responsable PIT di itam nuyu Babacar Pascal Jonn ànd doole bokk dooleel ànd dooleel président Macky Sall bi nga xamee ne moom it léegi la fi jógee ak responsable am euh, Habib di tam tey jii sama petit frère sama xarit di Ousseynou Diouf dafa def acte bu mag fii la dëkk nekk xare rekk xarit ak di doom ci jigéen ñi nga xam ne ñoo fi def groupement ànd bokk jom def acte bu mag acte boobu nag ñu ngi koy saluer ngeen gën a ànd ak moom jàppale ko ndax ñun ñi ñëw bokk fii te bennoo moo joxe doole di nag balaa may egg fenn may remercier sunu ay responsable yi nga xamante ne ci pôle bi lañ nekk madame Diong bi nga xamante ne moo yore pôle HLM HLM Malick Sy ak ñoom Khady Ndiaye ak ñoom ñëpp ñi nga xamante ne ñoo nekk ci pôle boobu. di nuyu ñi nga xamante ne ñoo yor liggéey bi tey sonn ci lool moom mooy ñi nga xamante ne ñoo yor bés bi ñi nga xamante ne suñ leen di limee tey ñi ñëpp kontaan mooy wax ànd bokk Diong. su ma ci tuddee su ma tuddee naa ñëpp su ma tuddee Rama Saw sama jabar tudd naa ñëpp ak Marème Diarra Ngone Ba Awa Cheikh sama yaay ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoo bokk ci groupement bi ku lim juum waaye nag décoré ngeen jigéen ju baax. jigéen joo xamante ne moo ndeyeel ñépp mu Adja Ndeye Fall kooku bu baax la. Ngoné Gaye wax yi nga wax wax yi rafet la Aram Silla wax yi ngeen wax wax yi rafet la waaye yéen ci man ngeen bokk moo tax seen seere ci bi man day des Adja Khady Gaye sama président groupement ñoom ñoom it maa ngi koy sant waaye nag mobilisation Adja Margo Ndoye ak ñi nga xamante ne ñoo jógee. ñoo jógee ba euh, Kër Madaro ak ak Sangé ñooñu ñëpp gis nañ ko Ngoné Margot merci mention léegi xam nga nag lim suñ koy continuer fi la ñuy yendu wala la ñuy fanaan moo tax ñi ngi yemale lim bi fii waaye xam ne ñëpp ci lañ bokk di tam nuyu Fama di leen wax benn yëf bu gàtt nag ci li ñu nekk nii maanaam ne ñaax ci lenn ñeenti laa leen di ñaan yàgg naa leen koy wax sunu bakk mooy liggéey pas-pas jub ak kóolute liggéey pas-pas jub ak kóolute moo leen di may loo leen am tey ngeen am ko déwén lu ko ëpp lii ngeen def ba démarrer seen i groupement tey ba ñu koy wax ne que ci biir zone ouest bi yàlla def na ñu am si 120 groupement ci biir Thiès yàlla def nañu fi am 300 groupement ci département bi am nañ fi 200 groupement tout Thiès Touba soxna Bousso ngi nii toog mën nañoo seede yor nañ fa 200 groupement waa Tiwaawan boole nañ leen ci waxuñu ma ba waa Ngaye Mekhe kon macha allah yàlla def nañu am groupement yu bare. waaye nag li may sama mbébét mooy yéen ngeen di gën góor góorlu ba loo am ngeen seeni solidarité ngeen di koy bàyyi ndaxte sunu mbébét mooy ñu defar mutuelle bu mag sunu mbébét mooy ngeen def benn. commerce solidaire boo xamante ne ku ci soxla di nga ci gis lenn rek laa leen di ñaan déwén wala déwén jeeg fu ma leen fekk ren bëgg naa fekk déwén ngeen fekk lu ko raw te loolu lu koy mayee mooy àndandoo bokk ni waaye sokkee loo leen am ren su jot tas jotee ngeen toj ko lekk ko am ndaa toj ndaa du tax nga bari ndaa di nga bari toj ndaa waaye doo bari ndaa denc leen seen solidarité ñu boole ko ngeen wóoluñu ñu ànd ak yenn liggéey ba mutuelle boobu taxaw ngeen nekk des femmes leaders au niveau international ngeen di dem di ñëw loolu laa bëgg. waaye nag tey dafa am beneen loo xam ne daf cee ñambaas parce que ci zone ouest laa nekk di fa politique ñu leen di ñaan fii mu ne nii. dañu jëm ci lu ñuy wax parrainage ku nekk na nga téye sa carte d'identité ndaxte ñu bare ñu ngi wër ak di leen laaj seeni i carte bu leen jox kenn carte d'identité téye leen ko ci déglu ma ba pare am na leneen loo xam ne dañ koy wax ñii nga xamante ne mooy zone ouest bii dafa fekk am nañu fii cinq candidats Sénégal ba mu daj amul fenn foo xamante ne ci benn commune d' arrondissement cinq candidats à la présidentielle dafa am yàlla moo def ne ci zone ouest bii lañ nekk. moo tax ñu ngi interpellé les plus hautes autorités de Benno Bokk Yaakaar pour ñu xool bu baax zone ouest bi ndax c' est une zone spéciale ak spécificité parce que enjeu bi moo mag enjeu Thiès déjà c' est un enjeu dama ne enjeu Thiès déjà mooy enjeu bu mag. enjeu bu mag la waaye enjeu zone ouest nekk enjeu bu gën a mag ndaxte dañ fay fekk ay sunu ay morom yoo xamante ne dañoo bëgg li xam ne ñun moom la ñu bëgg te ñoom seen biir am na si ñoo xamante ne dañu yoroon ay ndombo tànk yu mag ay premier ministre ay ministre kooku nag pour mën a jàkkaarloog ñoom dafa laaj ay moyen ku ko wax ñu wax ko ku ko waxul ñu wax ko laaj nañu moyen te moyen yooyu nag moyen yooyu suñu xaaree ba élection jot ngeen joxe ko sànni sa loxo la ndax élection mobilisation la ak animation waaye massification ci période bii lañ ko soxla ndaxte kuy togg ceeb soo xaaree ba sóor nga koy doog ko jox lu mu ko toggee kooku dootoo ko defar ceeb bi ndax ceeb bi sóor nañ ko ba pare kon tey jii moo tax ñu ngi laajte les plus hautes autorité que ñu bàyyi xel bu baax ci zone ouest te luñ fiy defit nañu gaaw di leen ñaan tam ngeen àndandoo booloo nekk benn pôle yi nga xam ne lañ fi monté ngeen jege leen ñoom Ousseynou Diouf ñoom madame Diong dinañ leen jege si waxtaan seeg yéen waxtaan ak yéen nga xamante ne su euh, li nga xam ne mooy premier jéego muy euh, parrainage bi incha allah luñ ñu fi jox te man leer na ma luñ ñu fi jox sas ñu ko incha allah wóolu naa leen di ngeen def lu ko raw maa ngi leen sant di leen gërëm wasalaam. waaye tey moo ko waral. mooy sama càng li ma xam ne xaw ma muy kan muy docteur Pape Amadou ma bëgg ngeen tàccul ma su doon dee sama gémmiñ rek mën naa xam ne doyul. damay bëgg ngeen ànd ak man ci remerciement yi ànd ak man ci li di wax gratitude ndax nag docteur xamatuma lu moo koy def luy bi bala muy sori damay wax ne gis naa ba tàyyi ku ñàkk kiñaan waaye gisuma ku dàq docteur bi kay Thank you. acteur dafay dal dalal ñu ñu bari sax waaye man ni ma dalalee dafa particulier ni ma dalalee dafa spécifique ndax damaa ñëw rek mu ni kii mooy ticket gagnant de Macky Sall bu doon ku doon di xalaat wala mu am ay arrière pensée bu ko def de façon spontanée ku spontané ngi nii ku dëggoo ngi nii ku ñàkk kañaane ngi nii ku am générosité de cœur waaye nag ku xamul xamoo kii dafa suur démb kon lii munul bett nit ñi xëy na ñi ko xamul ah muy nag nitu développement parce que nag dichotomie entre développement ay la politique mënul nekk nit a ngi naan defuma politique damay def développement mais ñu ngi politique ndax li muy def ku nekk bëgg nga ko def li muy def di fekk ñoo xam ne ne dañuy partir de rien mu leen di yëkkati di leen yëkkati ba ñu xam ne yëkkati ko am dégg naa sànq sama benn sœur bu ñuy wax Ngoni Guèye nekk ci moom di wax na daf leen di jàngal lu ñuy nappe waaw ma dégg daf leen di ma dolli ci daf leen di jàngal di nappe waaye daf leen di jàngal nu ñuy béyee jën loolu la fi nekk di def beralu ko Thiès ouest beralu ko Thiès nord beralu ko unité euh, est beralu ko région de Thiès rek parce que boo jóg génnee région dem na ba Touba di fa def yooyu donc nit nag dafa bëgg jërëjëf jërëjëf docteur. ma ñëw Thiès naa nuyu sama nakkandoo yi fi toog ak sama frère ak sama sœur waaye damay yàkkamti wax ci moom nga ne moom la nga am générosité bi tax nga ñëw ba sama koñ ma di fa dara nga ñëw jógee sa clinique. génn ci li may seede ma fekk la fa nga am fa ay groupement nga ne groupement jigéen ñii nekk fii topp leen Tické Ndiaye mooy Tické Gagnant gis naa nag lu ne waaye boobu moom gisaguma

lépp politique bu suñu amul moitié bu nga xam ne dafa nekk à suñu waxu ma ne duñu egg fi ñu bëgg a jël waaye dina yéex kon nag sama jabar mat leen jërëjëf léegi nag dama bëggoon balaa may ñëw ci groupement bii ànd bokku jom ngeen may ma tuuti ma nuyu ñi nga xam ne waa Benno Bokk Yaakaar nañu te nekk am na Souleymane Ba Ndiaye Bra di suñu papa di suñu mag di suñu njaay ah nekk nit ku baax nekk exemple di ñu tette moom itam di génn rek lu baax si génn ñen di rek di ñu dimbale ci loo gis na mi ngi suñu gannaaw. may nuyu. Cheikh Kane. Cheikh Kane. moom it puso rek. dañoo bokk yaakaar waaye puso ci xarañam. ñuy nag ñu sopp docteur te mu mën ko seet. maa ngi nuyu sama rakk Ousseynou Diouf. muy xale bu baax bu xarañ te xam ma nekk bu positif nekk koo xam ne que ne day xëy si boobu woon ci président de la ci service am maa ngi nuyu honorable député Ndeye Fall Oulou Bari di moom itam sama sœur di nit ku baax parce que damay faral di wax ne ku rek moo mën a ràññee ku baax Adja Ndeye Fall gis naa sa taxawaay jërëjëf ah Mati Niakh mi ngi fi sama sama jabar muy Adja Ndiaye na ba jàll madame Camara muy Adja Ndiaye na ba jàll di soxna Amath Camara nekk fii ñu gis taxawaayam ci Benno Bokk Yaakaar gis taxawaayam ci jigéen ñi ma di ko wax toujours la stratégie donc par Pascal jóge na fi léegi Habib Kane nee nañ ma mi ngi fi ah, euh, gisoon naa aussi Madabo Wade defe naa ne Saliou Ndiaye mi ngi fi Adama Ndiégène mi ngi fi Ahmed Mbaye sama jarbaat ak Janaba ah ñoo xam ne que ne bu ñu jógee mairie da ngay xam ne xel day dem ci le maire Talla Sylla muy ku xarañ koo xam ne que ne mu ngi jàppale jàppale le président de la république di ko ñaanal li mu mébét ñëpp waaye ku ma limul xamal na yaa ngi sama bopp dafa temps bi dafa xaw a gàtt ci waaye yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu nekk ci juróom ak santam li tubaab di wax en vos rangs et qualités loolu nag euh, bala may finir nag léegi da may may ma wax ci bokk jox groupement ànd bokk jox yéen docteur moo ma leen tànnal waaye docteur lu mu tànn rek muy lu baax rek da koy ñëw jox sër loolu rek lay def mënuma leen fay parce que bu leen docteur waxee ne leen c'est ticket la mare mënoon ngeen na ko du moom waaye da ngeen na ko ki ngeen tànn nga tànn moom lañu tànn dégg naa témoignage yi ngeen wax ci moom te muy ma leen di ñaax rek di wax ne ni gën docteur nekkee seen ginnaaw danaa ko nekk seen ginnaaw ndax kan ndax moom ndax docteur waaye nag dama bëggoon ne yéen du xam leen ne yéen ci làmp ndax développement nii la wax ngeen fi ngeen jaar wax ngeen fi ngeen jógee docteur fi mu leen indi ak fi ngeen indi seen bopp kon loolu dafay mel ne ak natt parce que développement dañ koy mesurer ci ay objectif objectif yi fixé ngeen ko mesurer ko xam ngeen fi ngeen toll ngeen bëgg fa dépasser loolu nag yàlla leen ko yàlla defal waaye yàlla dina ko def parce que ñi ngeen àndal ñu mat a àndal lañ tax xam ngeen fi ngeen jëm benn rek laay laay laay wàcc laay terminer mooy li ñuy xaar ci yéen li docteur di xaar ci yéen te ngeen xam ko mooy gane dooleel docteur mooy gane mooy lan mooy ngeen parrainé bokk ci parrainage bi je dis même marrainage bi du parrainé parrainé le président de la République mais doyul bokk na bokk dimbale docteur mooy lan mooy ngeen dem voteel le président de la république du Sénégal le président du yaakaar le président du Benno le président de l'espérance mais le président du pétrole le président de l'émergence muy le président Macky Sall kon loolu le février au soir que ñu proclamer sa victoire sa réélection ñu wax ko mais aussi que ñu fête ko ñu jubilé te yéen ngeen nekk ci kanam ak docteur ak ak ñëpp vive le mouvement bu ànd bokk jom vive la ville de Thiès vive Thiès Ouest jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf merci ñoo ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di dooree sunu xew mi bisimilahi rahmaani rahim ñaan yeggale ko ci alhamdulilah rabbil alamin ñun waa ànd bokk jom ana waa ànd bokk jom waaye merci beaucoup ñun waa ànd bokk jom sunu siège nekk fii ci dixième carrière fii ci kër ajaratu Nayda Fall ñoo xewle tey tey jii le 21 juillet 2018 lu ñu xewle dañuy ngénte sunu groupement muy groupement ànd bokk jom bii nga xam ne dañoo raam ci lu sori ci ay jamra ay natt ay teggi yóbbu ba xëy benn bis sunu parrain bu ñàkk ci ñaan gi yeenu nañu def leen groupement ñu dugg ci gis ci njëriñ gu bari wuti sunuy lépp ba tudd ànd boo ko jom ana merci beaucoup. gis naa leen. merci beaucoup gis naa leen. noonu la ñu ni ma leen ko waxee noonu noonu ko doon ko defee. ba ba nu duddee ba nu duddee sunu groupement ànd bokk ñoom dugg sunu mag sunu maman yi ñu uuf ak sunu papa yi sunu kër gi. ñu yedd ñu conseillé nu ne ñu xuus leen yoon bi ngeen jëm jàmm rek lañ ci am ñaanal nu nu jóg dem seeti docteur Ndiaye ne ko groupement di kat daa am attestation ñu bëgg koo ngénte bala ñoo yeggale sax mu ne nu may parrain bi moo ngi nii toog loolu la wax tàccu leen waaye ah. waaye dégg ñëw xale yi ne groupement ne bu amee parrain day am marraine ñu ne ah ñu dañuy soog a door ne ci koñ gi xamuñu dara nan delluwaat ci docteur Ndiaye kon looloo wane ne xamuñu dara ñu dem ba ci moom ne ko kan moo la doy ñu def ko marraine xalaatul sax mu ne def leen ko sama sœur sama xarit sama àndandoo ci ma bëgg fii ci Thiès muy ajaratu day ci Ndiaye Diop. kër leen ko sama sœur sama xarit ki ma nekkal fii ci Thiès nekk sama kanam nekk sama ginnaaw muy Maram Kassé bi ci lycée Malick ñu daal def délégation dem fekk ma Maram Kassé cité Ousmane Ngom yóbbul ko lettre bi mu kontaan ci lool ñu commencé organiser suñu journée bii noonu la demee ngénte moonu tax a jóg ngénte groupement féminin ànd bokk jom fii siège fii ci lis kii dixième carrière ëmbaale escale HLM route de Dakar ñun ñëpp ñu nekk plus de cent cinquante membres bokk bokk jom bokk fulla bokk bokk fayda fas yéene ko nag ci yoon bi ñu docteur Ndiaye tracé muy liggéey pour le développement du Sénégal je vous remercie. waaw waaw merci beaucoup kaddu yi am solo trop ku may bëgg a jox kaddu nag kan ñu naan ko nag Rama Sow di jigéen ju ah, ñu gën koo xam ci madame Ndiaye Ndiaye Diatta Ndiaye Talla Ndiaye Ndiaye bi leen benn jéem a bëgg lox ma ne ay ca micro baa ngi noonu. ciy Rama Sow ciy Rama mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mesdames mesdemoiselles du groupement And Bokk Jom et chères sœurs des autres groupements ici présents à cet instant où je micro au groupement Bokk Jom Permettez-moi de vous signifier toute mon émotion en ce jour mémorable, baptême de notre groupement. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent à notre invitation. Aujourd'hui, samedi juillet, l'histoire retiendra que tout début n'est pas facile. Témoin d'hier, il y a de cela trois ans, et d'aujourd'hui, je peux affirmer que vous y croyez maintenant, vous les femmes. de leen déglu li ñuy wax car tout a démarré avec avec ou accès c'est selon avec la mise en place de deux caisses autour et avec autour une trentaine de femmes motivées pour une cause unique être femme leader participer au bien-être de leur foyer et par conséquent participer à l'émergence de notre cher pays, le Sénégal. Je ne vais pas continuer mon discours sans m'appesantir sur un homme spécial. Oui, un homme social et social. Un homme qui a su donner forme à accès, qui a donné un sens à accès. Cet homme-là homme n'a cessé de nous suivre, de nous assister, de nous accompagner. Un homme qui, à chaque fois que de besoin nous dépêche des encadreurs, des techniciens, en la personne de Gora, de Ablaï de Merngone et de Tonton Ablaï Gueye. Et j'en passe. Il y, a, il y a aussi d'autres. Pour notre formation, bien sûr, et pour la bonne tenue de nos caisses. Soyez-en remerciés, messieurs, aujourd'hui devant toute l'assistance. Cet homme, vous l'avez sûrement deviné, c'est le PCA de Fongip. Le ménage le promoteur de la politique de développement de son excellence le président Macky Je veux nommer le docteur Pape Amadou Ndiaye. Sous vos s'il vous plaît. En vous suivant, docteur, nous sommes conscients que vous êtes un inconditionnel de la cause féminine, car vous nous le démontrez à chaque occasion qui nous est donnée de vous côtoyer. et par les innombrables projets que vous nous proposez en nous impulsant sans cesse. Voilà un homme qui, à mon sens, a compris que derrière chaque grande dame, il doit y avoir un grand homme pour l'impulser. Un formateur, un homme engagé dans une politique noble car sociale et de développement. Docteur Ndiaye, sans vous, Axé ne serait certainement pas ce qu'elle est aujourd'hui. Regardez toute cette assistance sans vous docteur, sans votre appui, sans votre orientation, votre crédibilité, qui nous est aujourd'hui ouvert, on, qui a aussi ouvert les portes des banques, notre association n'aurait pas cet enthousiasme. excusez y a eu un changement. Et ce soutien, vous le faites avec désintéressement, car nous avons compris que pour la meilleure façon de procéder, et d'emprunter ce fameux proverbe chinois qui dit vaut mieux apprendre à pêcher que de demander toujours du poisson. <coughs> docteur Pape Amadou Ndiaye gàcce ngalaama vraiment gàcce ngalaama wante nag ay góor nga ko seetal wala boog Thank Nous avons un peu glandé des infos sur seulement quelques de ces réalisations hein, que notre sœur Nefatou va se charger de vous présenter. Ah Madame Deiti Ndiaye, notre marraine, pour être sincère avec nous-mêmes, nous ne connaissons pas assez. Mais à l'entente de notre démarche, Votre nous a signifié ce que vous représentiez dans ce pays en tant que femme de développement, en tant que haut cadre, femme politique et femme de confiance auprès président Macky Nous savons aussi que Thiès représente beaucoup pour Et le charisme que vous dégagez et qui charme chacune d'entre nous le prouve. Merci d'avoir répondu à Nous, les femmes de Andbok Djong, sommes aujourd'hui à décrocher les étoiles, nest pas Si je puis m'exprimer ainsi. Car nous avons compris la chose, car nous avons aidé à bonne école. Merci en tout et pour tout. À l'endroit des femmes, Je profite de ce moment pour vous dire que le groupement Bok Job est né et vous décline sa politique et ouvre ses à toutes celles qui veulent renforcer ce projet fédérateur. Vous m'excuserez, mais dans l'assistance, je vois une personne très active qui, dans son action, ainsi partagée avec certaines d'entre nous en nous appuyant aussi financièrement et techniquement. Un homme du quartier, un voisin, un parent, je vous nommer Elage Hussein des impôts au demain. exceptionnel aussi du président Macky Sall, pur et dur. Je disais donc que voici la politique noble du groupement. C'est And Bok John. À nous les femmes, lui Jok Jokna. Je termine par vous féliciter, car nous femmes dixième, carrière escale, étions très réservées, c'est connu. Mais ceci est désormais révolu. car avec And Bokk Jom le, le ton est donné avec un credo femme, solidarité et développement. Nous formons déjà un bloc. En ce jour, nous baptisons notre groupement. L'heure maintenant est à la remobilisation derrière notre leader, Dr Pape Amadou Ndiaye. Plus d'action, nous Plus de formation, nous plus de renforcement de capacité nous voulons. Aujourd'hui, l'heure a sonné pour nous les femmes, car Gour Bahna, Djigen Bahna. Je remercie tout le monde qui te vive le, le groupement Andebok. du groupement Andebok Le choix du docteur Makamadou Ndiaye Kharitou Djigeni, comparé des femmes du groupement Andebok n'est pas sorti. Hormis son riche parcours administratif, parce qu'être docteur et directeur général de FONGIP veut tout dire, il a fait beaucoup de réalisations pour le développement des Thiès et du Sénégal. Avec la création de Anne Defarsabon en il a attaqué l'éclairage public d'un nombre d'artères dans Le déguerpissement des dépotoirs d'ordures avec ses propres machines BTP à Kermamelage, au marché Sam, au poste de santé de 10 avec plus de 1200 tonnes d'amas. À Carrière, derrière la stade de Mounion et j'en passe. La réfection et l'équipement de trois postes de santé, Kaoussarafal, Pogniel et Ablaïaki. Le terrassement du cimetière de Kahao et de rétablissement de l'eau de leur poste de santé. La formation et l'identification des motos de la ville de Thiès avec la mise à leur disposition des gilets et casques. la création d'associations communautaires de crédit d'épargne et de solidarité accès, avec tout un accompagnant, formation, production, écoulement, gestion et autres. Avec un seul objectif, la mise sur pied d'une mutuelle d'épargne et de crédit au profit des femmes. Dr Ndiaye a également mis à la place à la disposition des Sénégalais et Sénégalaises une plateforme de transformation de céréales locales. Les groupements axés ne sont pas seulement à Thiès Ouest, qui polarise 120 Il y en a aussi à Thiès-Ville avec plus de 300 caisses et Thiès département 200 groupements à Touba, Tivavone, Gaïmehe et autres. Pour le fonctionnement du travail, Docteur a donné une voiture à Thiès, à Touba, ainsi qu'une dizaine de motos pour la diligence de service des populations. Et cela, on sait que c'est sur son fonds propre. Sur son Un investissement avec un seul but, un seul objectif, aider les populations. Même son salaire au niveau du fonds est redistribué aux jeunes qui l'accompagnent dans sa politique de développement.

honorables invités, mais chères sœurs du groupement And Bokdjom et chères sœurs des autres groupements ici présents. Permettez-moi de vous présenter notre marraine, Madame Deitike Ndiaye Diop, et de vous dire un peu sur le parcours de cette brave dame. de cette dame que je nomme aujourd'hui la lionne du Cayor. Cette digne fille de la région de Thiès, celle qui est une référence pour toutes les femmes du Sénégal. Madame Deïti Kenyaï Diop, elle est titulaire de BAC série D avec une mention bien au lycée Malick Madame Ndeye Ndiaye Diop est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en gestion des projets d'entreprise. Elle a aussi un master en business et, et administration aléatique. Madame Ndeye Ndiaye Diop a occupé plusieurs fonctions dans l'appareil d'État et au niveau international. Toujours Nétike Diop, notre marraine d'aujourd'hui, elle a enseigné la technologie des produits de la pêche et de l'aquaculture. Elle a été chargée d'études et coordonnatrice de plusieurs projets de développement de la pêche Elle est la première femme en charge de la direction des pêches maritimes. Elle est aussi ingénieure en technologie générale. Madame Leïti Ndiaye fut fonctionnaire internationale des Nations Unies pendant trois ans. Aussi, elle fut représentante de la FAO à Djibouti. Elle a été aussi conseillère technique au ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Elle est aussi inspectrice des affaires administratives et financières au dit ministère. Madame Diop est parfaitement bilingue. Elle s'exprime en anglais, elle s'exprime aussi en français. Elle est orfèvre du leadership féminin du développement et de la coordination. Elle est aussi spécialiste de la gestion des conflits. waaye ñoo am marraine waaye tàcc leen macha allah macha allah ñoo am marraine. ba ñaar jotee daa ñaar. elle est haute elle a été la première secrétaire générale au ministère de la pêche et de l'économie maritime. Madame Leïtike Diop a une expérience de plus de 30 ans dans l'administration sénégalaise. waaye loxo yi ci madame Ndeye Tické Doudou waay ak elle est actuellement directrice générale de l'ANAM agence nationale des affaires maritimes à Dakar tàccu leen sunu marraine waay ba jàng jotee dafa jàng madame Ndeye Tické Ndiaye Diop la Lionne du Kayor ñun ñi leen tànn dañu naan alhamdulilah rabbil alamin ndax réccu wuñu li ñu ñëwee woon par la de Pape Amidou Ndiaye ñëw installé leen accès tey jii su ma yeboon ni bisu tari sax lañ ko tuddee bisu tari ndax tey lañ leen jàngaloon. da ngeen a ñëw pour tari ko waaye nag ñii rek la mën a doone vraiment ñetti kees keroog bi ñuy ñëw di leen installé benn kees la ñu installé demuñu ñetti weer installé nañu ñetti kees te kees gu ne ëpp na ëpp na 35 personnes kon positif rek moo am solo ñu wëlbatiku nag wëlbatiku nag jëm ci daalim kan mooy daalim di Papa Amady Ndiaye ku bëgg ni ku bañ ni góor ndax Papa Amady moo fi def lu kenn deful ci biir Thiès Papa Amady Ndiaye bu ko social ci moom nga ko jële ku jàppale doomu aadama ci moom nga ko jële yaatu dënn boot ñëpp boot di nguur kenn ku dugg si fii ci Thiès doon leader politique bu ma yeboon Papa Amady Ndiaye ci ñi la dalal ci la bokk kon loolu lañ ko delloo njukkal ah, dañuy wëkkati ko di la sargal parce que nag zone bi gën a diis ci zone yi zone bi gën a métti ci zone yi muy zone ouest ci nga waaye liggéey nga fi loo xam ni néew ma kenn liggéey ko bala ko fekk kenn liggéey dina ko seetaan. wax nga ak ak ak seet. nekkoon dana bàyyi kenn du ko bàyyi ñoom Dakar maa di nuyu ku nekk di turam ak santam di commencer d'abord di féliciter sama grand frère le docteur Pape Amadou Dieng. docteur Pape Amadou naa liggéeyam fii ci biir Thiès doo ko ko nattable surtout ci ah tey jii bu ñu demee ba fii ci secteur dixième carrière Escale bu ñëwoon fi coordonnateur moom lay jàppale di ànd ak moom ci liggéey bi ndax liggéey bi dafa yaatu. ah di leen jaajëfal yéen jigéenu bokk ànd bokk ànd bokk jom na ngeen ànd bokk jom comme ni ngeen ko waxee parce que yéen jigéen ñi yaakaar naa boo leen ñu jàppalee ñun dinañ dem. ñun nag lenn rek moo ñu soxal moo di ñu fexe ba président Macky yàlla mooy ko deuxième mandat. ko yàlla mooyee deuxième mandat allahu rabi yaakaar naa képp koo xam ne àndoon ngaa moom di ko jàppale. dina la mun a gees ndax fi mu toll nii premier mandat bi phase test la te liggéey bi dafa diis. au passage mooy remercier mooy féliciter aussi Ndeye Tické Ndiaye Diop ma sœur jàmbaar itam nekk fii di liggéey liggéey bu am solo ci zone ouest ma jël kàddu te du ma remercier ñi nga xam ne ñoom laa bokkal secteur bi fii di liggéey politiquement ku ci mel ni honorable député Ndeye Fall Diouf madame Camara grand boobu gis naa ko fii léegi ci ginnaaw ñoom doyen Ibrahima ñoo ngi fi ñoom Cheikh Kane waa Benno Bokk Yaakaar bi ñu ko cité ñëpp ndax yaakaar naa ñi fi nekk bëri nañ di liggéey te ñu bëri xamuñu leen mais pour ma part personnellement je prends l'engagement incha allahu rabi fin du mois bii nii yéen waa bokk jom dinaa def cinq cent mille seen biir